yéen a ngi waaj seen i bésu jigéen ñi. képp ko dee téye waa Italie. Haalpulaar yi nekk Paris. waa Belgique waa Londres waa États-Unis parce que wuñu waa Amérique waa Mali waa Mali waa Guinée. waa Gambie. waaw Haalpulaar yi nekk France. rëb. on a doon xaapel bees bii la bii di génne pour le 10 Cécilis jóg la. eh eh eh eh. incha allah incha allah. dafa nar a neex. incha allah incha allah. lu fa nar a xew. lëmbalal leen ndagal leen. alhamdulilah leen wàngul leen. eh. man Viviane maa ngi seetaan Télé Sénégal point com